dëkk ci dëkk bi wax ak waa dëkk bi saafonteeg waa dëkk bi gis nañu nag ne am na ay problème tëngeej koo waxtaanal wala ñu ci bari soo leen nee lan mooy problème mu tëngeej ñu ne la assainissement assainissement leen waxee suñu réglé problème assainissement bi nag yéen lan mooy nekk seen problème ñu ne na xale yi am liggéey emploi soo dee beneen ñu ne la voirie éclairage

guy murit bu ne leen song même biir Arafat ma dëkk am na ay quartiers yoo xam ne lëndëm na lëndëm boo xam ne kenn ñemewu faa dox muy tànneel sa liggéey soo demee koo yu bëri sant yàlla doo ñemee génn paree ñu ne tamit bëgg nañu nag ku leen jàppale ndax ay jàmbaar lañu waaye amuñu ay moyen après ñu nañu tamit wàllu wér gu yaram am nañ ci problème ndax yenn saa yi nga faju doo am loo fajoo wala nga faju ba xaalis bi jeex waaye tamit ñu bari dañ lay wax ne waa ñun mairie bi xaalis bi moom fu muy fu muy dugg lu ci def mooy préoccupation sur la gestion des finances locales ñu bari bëggoon nañu xam lu ñu ñëw nag xeex lu ñu ñëw xuloo waaye nag ku leen leeraloon dina baax donc loolu nekk na problème problème yooyu yëpp nak soo ko regroupé da ngay gis da fay def ñetti axe benn bi moy service sociaux de base et cadre de vie lépp loo xam ne dafa aaju ci environnement bi ñuy vivre benen bi moy finance locale yi nan lañuy def ba mu gën a dëkk bi benen bi moy suqali nag suqali économie technique parce que nak wax ji wax ji ambition ambition su dëkk bi amul économie mu dox liggéey du yomb dund wi du yomb léegi bu njëkk ba damay faral di wax ne est la banlieue de Dakar Pikine est la banlieue de Dakar Rufisque n'est pas la banlieue de Dakar Rufisque c'est une ville commune avant Dakar damay faral d'ailleurs di wax ne am na am na c'est Dakar qui était la banlieue de Rufisque parce que nit ñi dañoo ñëw liggéey si Tëngéej après ñu Dakar bon, c'est parce que le port arachidier était là c'est parce que ay industrie yu bëri fii la mais depuis port bi jóge Tëngéej 1930 depuis industrie yu bëri commencé tëj ñun ñëpp bi ñu nekkee xamoon ay pas un pas sans bata ay le bata la ñoon sol bi entreprise yi à nous di wàññeeku comme comme bi dafa delu ginaaw delu ginaaw boobu nak bokk na ci li appauvrir dëkk bi moo tax suqali am na lu am solo problème yooyu nak nga xam ne wax nañ ko bugguma def théorie xam nga professeurs yi ñoom dañu bëgg théorie déedéet bugguma théorie dama bëgg problème bu nekk ñu wax li nga xamante ni bi ñuy waxtaanee ak nit yi ci quartier yi waxtaan ak suñu équipe yi xam ko ci suñu expérience gouvernementale waaye xam ko ci loo xam ne nit ñi ñu ngi koy def déjà biir Tëngéej xam ko tam ci loo xam ne ñu koy def ci yeneen i gox ci dëkk bi xam ko tam ci ay programme yoo xamante ni président Macky Sall yëkkati na ko pour motax tax ñu def ay proposition ci bu nekk proposition yi tamit bëgguñu mu nekk ay proposition li tubaab di wax aérienne moy lo xamné ah lii daal ay wax rek non day nek ay proposition concrète articulée à la réalité lo xamné xel mu nako koo dégg te mën nañ koo def